salaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV di leen jaajëfalaat bu baax di am contentement ak mbégte di jano ak chaque jour ngir leen li gën a fës ci bopp xibaar yi maag sama gars rek comme ni ñu koy defee ci aljum ji sel ji damay jël nuyoo bi rek jiital ko ci ki mooy borom kër di Pape Thialis Faye di ko nuyu bu baax di ko ñaanal jàmm ju bare bare ci noonu damay ànd ak damay nuyu sama gars yi rek ñi ma àndal ci revue bi as Mbaye Babacar nuyu naa la. jërëjëf Ndeye Mbacke ñu ngi lay fay wante ñu ngi nuyu bu baax a baax suñu xarit ñuy topp fii ci euh, Leewtoo TV ñu ngi leen di ñaanal àjjuma jàmm ak salaam di ñaan yàlla na yàlla dolli jàmm ci réew mi def ko ci àdduna bi yëpp. Assane Waala. Ndeye Mbacke di la fay di nuyu Mbaye Babacar di nuyu internetu Leewtoo TV amaan mbekk di jàkkaarloo ak ñoom pour indi leen li gën a fës ci yenn kaayu lamb ci comme tous les jours ah Ibrahima Dior moo di may sa revue bi xam xam bu ñebbe. waaw bu ñebbe bu weex nag laa la wax waxuma la bu xonq bii moo ci mën yéen jigéen ñi ku ci bëgg sa jëkkër heure bu xëyee rek di yokk sa ay point jàppanteel ak huile mu ngi noonu ah, moo gën ci duuri nii vendredi. 19 mars 2021 journal suñu làmb moom xëyee ci xëtam mu njëkk Max Margan sur le choc du 4 avril jour boobu nga xam ne làmb jooj nga xam ne moom la ñëpp di xaar mu ne Eumeu Sène est complet la dëgër de et coriace. Euh, Max Margan moo yëkkati yooyu les cas du nekk ka nga xamante ne bii nag xam-xamam ak xereñ TFM kenn dootu ko lam-lamee ci euh, làmb ji. Euh, moom bi ñu ko laajee ci combat boobu war a am le 4 avril war a dox ci diggante Eumeu Sène ak Lac de moom li mu ci wax mooy euh, Eumeu Sène dafa nekk mbër ma nga xamante ne bii dafa dafa dafa dafa boole lu bari dafa mën a bëri am kàttan ba pare am résistance ba nga ko laajee ci euh, Lac de nag nee na Lac mbër la ma nga xamante ne bii dafa ës ba pare naqaree bëreel asal Max Mbargane la journal suñu làmb xëy dalal mu wax ci combat bi nga xam ne war na dox ci Eumeu Sène ak Lac 2 le 4 avril la Max nag lu mu wax nee ne Eumeu Sène benn mbër boo xam ne nii bu complet la wàllu physique wàllu bare wala dóor yëpp pare na ci waaye moom Lac 2 nee ne dafa coriace man ni comme ni nga ko comme ni nga ko waxee Mbaye Babacar Lac de Guiers mbër mu ës la mbër mu résistant la mbër moo xam ne nii mu naqadee daane daane la waaye nag wax na ci Eumeu Sène nee na Eumeu Sène dafa war a gagné combat bi coûte que coûte ndax mu réconcilier ak supporter am ñu fàttali que ne dernier combat am da ko pertoon contre Modou Lo cor euh, contre Modou waaye également mu pertaale couronne roi des arènes mu dee Lac 2 moom nee na mbër mu posé la mbër moo xam ne nii du vendanger ay combat am day jël temps am ba gis lu leer doo ko jàll nee na bi daal amul favori favori cinquante cinquante la. moom daal euh, joxul kenn favori nee na daal cinquante cinquante. wax na dëgg cinquante cinquante la ñoom ñaar ku nekk mën na daan sa morom même si daje nañ pour moom pour le moment deux fois euh, la Eumeu seen daane ko benn yoon euh, ñu niil seen première fois. combat bi moo ni séddale ñoom ñaar. mu nga noonu Onde le Fou met en garde le troisième tigre de Fass la mu wax la mu xamle ci journal suñu làmb mooy que Gris Bordeaux arrête de parler au nom de lutteur Mbaye Babacar mu mel ni Onde le Fou àndul ak ki nga xam te ne bi. moom mii di Gris Bordeaux ñett nekk ñetteelu euh, tigre de Fass. Onde euh, euh, xam sa cosaan ma ngay artu ki nga xamante ne bii moom mooy Gris Bordeaux nee na ko moytul di wax ci suñ tur ñun ñi nga xamante ne bii ñun ñooy mbëri yi ndax. Euh, li ngay wax sa bopp rek ngay waxal li ngay wax waxaloo mbëri. dëgg la mbay Babacar on la faut lu ko métti mooy le fait que VIP yi Gris Bordeaux jiite leen dem seeti ministre bi ba pare ban génnee. au lieu que ministre bi wax jéggalu devant euh, sénégalais yëpp mbër yi ñoom ñoo génn jéggalu ne ministre bi jéggalu ne alors kenn gisu ko loolu nag moom moo métti Onde le ba mu tax ne nee na Gris Bordeaux bu mu waxati seen i kàddu moom euh, euh, bu mu waxati daal seen i kàddu ndax kàddoom gi doyu leen te wax na dëgg également parce que Buzz Production muy Ibrahima fay bi ñu ko invité fii démb suñ émission jotaay làmb wax na ko nee na après réunion boobu ministre bi ci boppam moo a génn condamné wu wala excusé wu devant tous les sénégalais ndax ba mu tooñ mbër ci benn euh, France 24 la demoon tooñee fa kon bu jéggalu également waroon na dem ci télé euh, jéggalu ci kënam ñëpp. dëgg la loolu moo gënoon. moo gënoon a nekk li nga xamante ni bii moom la xel gënoon a nangu. Euh, mais euh, comme ni comme ni ko ñëpp gisee ministre bi ba léegi gis ñu ko fenn fu mu yëkkatee ay kàddoom delluwaat gannaaw gannaaw. kàddu yi mu waxoon. dëgg la mbay euh, kii fa nekkoon chaîne yu fa nekkoon wala télé yu fa nekkoon war nañ ko jël mu jéggalu ci kanam sénégalais yëpp ndax sénégalais yëpp la tooñ nag boobu. ginnaaw moo ko waxoon. te mhm. noonu nag mbëri yam tooñoon ñoom ñoo delluwaat génn xam nga ñoo dellusiwaat di ko défendre moom. exactement Euh, loolu lu tey xel la Ondou Lofou dafa mel ni am na lu ko naqari te wax na ko réunion CNG pour le démarrage des conditions des arbitres améliorées waaw mu mel ni Assane jàmm jàmm mi ngi mi ngi mi ngi xeeñ diggante CNG ak arbitre ndax démb amalaat nañ beneen beneen ndaje ma nga xamante ne bii yaakaar naa la ca tukkee dal na xel wax nga dëgg nday ba bay Babacar daal na xel ndax démb CNG bi dafa doon dalalaat arbitre yi ginnaaw bi mu leen dalaloon euh, ki démb euh, si dalal boobu nag dafa mel ni euh, li li seen dalal boobu dafa mel ni am na njëriñ puisque d'après suñu làmb condition yi mba arbitre yi doon laaj dafa mel ni may naan leen ko nee na seen condition euh, finance yu ñu doon laaj ak seen condition euh, renouvellement licence internationaux yi dafa mel ni daal CNG bi accepté na li arbitre di doon ñaxtu te dafa mel ni euh, léegi daal jàmm ñëwaat na ci ñaari parti yooyu. gannaaw ay jàmm. gannaaw ay jàmm dafa mel ni léegi mu ngi neex na. <laughs> moo ko noonu combat contre Diène Kaïré pour le 4 avril incha allah Modou Anta les raisons pour vaincre. nga mi ngi noonu dafa ñëw ci euh, li war a tax mu am ndam ci digganteem ak euh, Diène Kaïré kooku di Modou Anta xeleb Thiès kaay bi nee na moom daal digganteem ak Modou Anta ndam rek moo ko ci war te Assane ñëw na ci li nga xamante ne bii moo tax mu war a am ndam. dëgg la Mbaye Babacar ni nga ko waxee noonu la Diène Kaïré wala euh, Modou Anta war a dajeek Diène Kaïré le 4 avril bii di ñëw ci diggante combat bi war a dox la ci entre. Lac de Guiers ak Eumeu Sène journal suñu lamb nag ñëw na ci ay points yoo xam ne nii nee na looloo tax euh, Modou Anta mi war a daane Boy Kayré euh, ci poñ yooyu mooy que ne dafa war a daane Diène Kayré pour augmenter valeur marchande am ndax ndax euh, jamono yi peesu dafa amoon problème mu cachet kasem dafa wàccoon ginnaaw bi mu daanoo léegi nag nee na bu daanee Diène Kaïré kasem bi dana yokk beneen point bi nee na euh, moom mooy leaderu cees Thiès ku fay nekk mbër Modou Anta moom mooy sa chef léegi pour que mu mën a dëggal loolu nag il faut que mu daane Diène Kaïré pour mën a nekkaat ci kanam beneen point bi moom mooy que ne ren euh, moo jën euh, Modou Anta boobu moom mooy nekk premier leader boo xam ne nii wala premier mbër boo xam ne nii moom mooy bëre ci saison bi te jógee Thiès te nee loolu tamit war na tax mu Modou Anta moomu daan Diène Kairé. te combat bi te combat bi risque bi ci moom la ëppee tamit. ci moom mooy mag bu daanoo mën na ci ñàkk lu bëri ndax kee xale la bu daanoo mën na relancer waat ci yeneen euh, yeneen possibilité. mu ngi noonu. chirurgie cardiaque installation du nouveau bureau Bira Sène félicité Mame Paul Faye donne le ton. Bira Sène gannaaw ba mu ndokkalee Maam Koor fay mi nga xamante ne bii moom moo nekk léegi président CRG bu Kaolack ñoom ñaar jokkalante nan leng yi Bira Sène jël na leng yi jox ko Maam Koor Maam Koor Faye ne ko ay ca léegi mën ngaa doxal. dëgg la Baye Babacar passation de service bi démb la amoon ci Kaolack 10 heures ci suba la démarré woon léegi nag bañ ci paree journal suñu mu nee ne. maam Kor Faye eh, donné na le temps bi waaye eh, kii di Bira moom félicité na équipe bu bees bi waaye nag eh, leneen lu ci tegu mooy maam Kor Faye mii ñu fal bees nee na pare na pour defal benn sargal bu mag a mag a mag Bira Sène mii nga xam ne ni moom la fa wutu am na solo Assane. mu ngi noonu duel du 4 avril ba léegi condition physique et mobilité Eumeu Sène Lac de Guiers 2 escalade le monument de la bi war a am le 4 avril incha allah diggante Eumeu Sène ak Lac de Guiers journal bi ñëwaat na ci mu mel ni ñoom ñaar ñëpp fa ñu taamu Assane fan la. dëgg la fi ñu daamu comme ni ko Ndeye Mbacke waxee moom mooy euh, monument de la renaissance lu ñu fa wuti nag mooy que ne euh, Lac de Guiers dafa dem ku nekk ay physique la fa wuti ak mobilité Lac de Guiers nag ki mu ci àndal moom mooy coach bii di Mamadou Ali Ndiaye moom moo koy coacher pour que mu mën a permettre mu am physique boo xam ne nii dina doy de telle le jour J Eumeu Sène du ko jaar fenn Eumeu Sène moom journal bi lu mu wax nee ne li mu fa wuti moom mooy day chercher une bonne assise physique demee def ay flexion loolu dina ko permettre am benn physique boo xam ne nii mën na bëre lu euh, temps bu bëri boo xam ne nii te du sonn. moo ngi nag ba léegi day desandi ci nga xam mooy bésu 4 avril boobu nar a am ci diggante la dëgg Eumeu Sène ba mu ca tegee jén Kaïré ak moo Modou a Mathia Thiès suñu papa Gaston mi da ca tegaat beneen combat bi social yaawu jaal ak yamb combat bu nar a mu ngi noonu Mbaye waaw yaawu jaal ak yamb di ñaari mbër yu neex di ñaari mbër ya nga xamante ne bii seen ay combat day day day neex te ñoom ñaar c'est première fois ñuy bëre asam ñu war a bëre waat le 4 avril ñoo nar a gisati combat bu am ambiance dëgg la Mbaye Babacar c'est première fois ñuy bëree comme ni nga ko waxee ndax suñu làmb ñëwoon na seen diggante nee jot na daane yaawu jaal deux fois daane na ko le 15 juillet daane na ko également le 7 juillet 2013 Diao Diallo également jot na daane deux fois yemb nee na daane na ko le 12 juin 2005 waaye daan na ko ci jour combat bi nga xam ne nii moo doon dox ci diggante Baye Mandione ak Cech comme ni nga ko waxee combat boobu le 4 avril lay amee ci diggante Lac de Guiers ak Eumeu Sène Gaston da ci teg xam naa pour au moins indi ambiance ci biir arène bi. moo ngi noonu nag pour son combat contre le polonais Pudzianowski Bombardier face à la presse polonaise. mu mel ni jàkkaarloo na ak taskati xabaar yi nekk foofu ca Pologne kooku di euh, Bombardier wax naka la nar a jàkkaarloo ak kii di Pudzianowski heure bu arbitre suuf lay génn seen diggante. dëgg la Mbaye Babacar combat boobu MMA lay am suba lay am foofa ca Pologne mu war a dox ci diggante Bombardier ak polonais bi di Pudzianowski journal suñu làmb ne nag ñaari combattant yi da da jàkkaarloo nan ak presse bi wala jàkkaarloo nan ak journaliste yi polonais yi démb nee na loolu démb la xewoon te ku nekk wax na euh, wax na li nga nar a def ci jour komba bi. mu ngi noonu nag euh, Khalifa Dia. moom mi nga xam ne mooy ménager ménager de l'écurie Fass ca la xam ne ci journal suñu daal mu ne euh, la fusion entre Fass et Dakar est officielle. ayca mi ngi noonu mu mel ni léegi euh, leer na diggante écurie Fass ak écurie Ndakaaru léegi xam nañ ne. Euh, booloo bi ñu doon wax léegi leer na naññ Assane. dëgg la Mbaye Babacar leer na comme ni nga ko waxee euh, fusion Fass ak Ndakaaru léegi euh, léegi daal mat na papier yëpp mat na léegi léegi officiel na noonu la ko journal suñu la am waxee ku ko fa xam ne nag moom mooy Khalifa Dia Khalifa Dia moom mooy manageru Forja lu tax mu wax ko nee ne xam nga dafa doon signé benn contrat ak Gaston Mbengue ci combat bi war a dox diggante Forja ak Pakala. nee na nag Pakalami wala Forza moom mooy premier mbër boo xam ne ni moom mooy bëre sous les couleurs de l'écurie Fass Ndakaaru Forza moo mooy mbër mi nga mooy mbër mi nga xam ne moo nar a njëkk a bëre ci couleur fi fusion bi am diggante écurie Fass ak écurie Ndakaar exactement kon mu mel ni am na charge bu rëy bu tegu ci kaw mu ngi noona ah. journal record lañ jëm lutte Eumeu Sène Lac de Guiers 2 prévu pour le 4 Yékini Tyson Modou Lo Lac de Guiers 2 mu ne say gala de l' indépendance bu mel ni yàgg naa dajale bisu mag ci làmb. waaw 4 avril xam nga bis bu mag la damay dégg sama papa Xaadim Sàmb naan naan naan naan bis bu mag ci la ñuy tër nagu mag mi ngi noonu euh, journal record nag dafa dellu siwaat ci li nga xam ne. moom mooy bis yu mag yi euh, mbër yu mag yi bëri woon ci 4 avril mu mel ni Yékini Tyson nañ cee bëri mm-hmm. wante kii di Modou ak Lac de mas nañ cee bëri mu mel ni le 4 avril daal bis bu mag la. dëgg la Mbaye Babacar journal suñu euh, journal record moo def loolu dikkaat ci bés yi nga xam ne ni euh, làmb wala grand grande affiche yi nga xam ne nii dox na ci jouru 4 avril wax na ci nag nee na Eumeu Sène ak Lac 2 mos nañu bëre 4 avril Yékini Tyson mos ñu bëre 4 avril waaye Sa si la daane woon tonnerre. Tafatine si la daane woon guy gi Ama Balde si la daane woon également Zos moom combat yi la ñëw ne lii mooy combat de l' émission télé Bombardier a croisé Pugliano Siki mu mel ni jàkkaarloo nag nga xam ne moom mu war a a tàggee dasee le vent bii di ñëw. ñoom ñaar jàkkaarloo nan foofu ca Pologne euh, jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi Bombardier ak Pudzianowski mel ni Assane jaay nañu combat bi bu baax a baax ba ñu jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi. dëgg la Mbaye Babacar toujours ci journal record moo ñu xam ne nee seen jàkkaarloo bi direct lañ ko doon diffusé ci télé yooyu nga xam ne ni télé polonaise la. Mm. nee na nag ñaari combattant yi jàkkaarloo nan fa maanaam Bombardier daje daje na fa ak Pudzianowski ki lu ñu fa doon def nag nee na jaay nañ seen combat bu baax a baax a baax weccoo nañ ay kàddu te combat bi Sauveur wax ku nekk euh, wax na ku nekk wax na sa morom li nga nar a def le jour ji combat boobu suba la nar am la 20 mars 2021 foofu ci Pologne. ku nekk xas-xas loo na ak sa morom. exact xas-xas loo na ñu xool nag Bombardier lan est-ce que dina signer troisième victoire am ci MMA que daane na Rocky Balboa daane na Daniel Potmore léegi mu dese ko nag. kii di Pidja Nofsuki mu ngi noonu nag Bombardier ko ci ñaanal euh, ndam lu rëy rëy di doomu Sénégal boobu na dem rek wane ne moom gaynde pur sang la ah gaynde bu mag a mag waaw mais waaw mais Bombardier ku nekk xam na ne ndaanaan la te incha allah suñu borom euh, ñu ko ndam lu yaatu mu ngi moo nekkoon li gën a fas si bopp xibaar yi mbay looy tàggatoo wee xanaa jaajëfal ñëpp dig leen daje incha allah bu ci yàlla àndee suba ak jàmm wante di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax sama mama Khady Diop fële ci Diourbel euh, mi ngi leen nuyu mi ngi man fu ñu déggante mu naa naan nuyul ma Ndeye Mbacke ak Assane Walu borom Linguère ak mama Marème jóob ñoom tamit maa ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm suñu mama yooyu nga xamante ni bii revue bi du ñu ko tardé benn yoon Assane Walu waaw Ndeye Mbacke di remercier donc suñu yaay yooyu di leen di remercier di leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax comme d'habitude di nuyu waa di remercier waa Linguère di remercier Yacine Fall comme nekk fi di <laughs> remercier équipe technique bi yëpp jërë ngeen jëf ba suba ak jàmm incha allah muy noonu ah, di leen jaajëfal baax waa Diourbel Mbaye soo demee rek jéegal ma nuyu ñun samay bàjjen leen di leen jaajëfal baax dem contentement ak mbégte si jano géen noonu nag dañuy daw rek daal tàggatoo jox leen dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV